الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi di seetaan ci Mouslih TV ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar di ñaan jàmm yàlla ñu ko yàlla def ci ñun def ko ci réew mi def ko ci àdduna bi yëpp ñu ngi dellusiwaat ak yéen ci sunu waxtaan bi ñu tuddee al mashakil al zawjiya te moo di problème yi nga xam ne dafa faral bi am ci néegu sëy ci sunu émission bi paase ñu ngi doon wax ne am na soxna wala borom kër jëkkër boo xam ne ñu leen di mandargaale saalab te moo di njàppaan waxoon nañ njàppaan ay qualitéem ak ay défaut njàppaan doon na jigéen bu muus walla jëkkër bu muus lool sax njàppaan nekk na benn animal boo xam ne ku ñeme coono la bon soxna si nga xam njàppaan la soxna su ñeme coono lay doon bu nekkee góor tamit góor bu ñeme coono lay doon doon na koo xam ne ku sawar la bu nekkee jigéen bu nekkee góor day nekk nit ku sawar ci néegu sëy nit ku sawar lool ci liggéeyu bi nga xamante ne dañ koy soxla ci biir néegu sëy dina doon koo xamante ne nag ci wàllu defoom bi gën a garaaw dina doon koo xamante ne li mu bëgg nga xamal ko nga koy xamal waaye xelam la muy nas ci biir la muy planifié ci biir secret ba ko dugal ci biir néegu sëy moo xam ku góor la moo xam ku jigéen yi boo doon sëy ak moom fukki at du ko jural ay doom doo mos a xam secret yi nga xam ne moo ko dugal ci néegu sëy te bés bu eggee ci ay objectif am ci néegu sëy bi dana sëy loolu moo tax tey ñu faral di gis soxna soo xam ne yàlla daf koo may war sa ko àdduna walla boog daf doon sëy yàlla rek borom këram génn àdduna walla mu doon koo xam ne daa bokk ci benn famille bu ñu xam walla mu am benn sant bu ñu xam walla sax mu nekk koo xam ne dafa am ay yeneen nasona beneen nationalité bitim réew nga gis góor boo xamante ne intérêt yooyu bu gis ci soxna si loolu rek mooy tax mu jéem a fexe wut ay bunt wut ay yoon nas ay pexe pour mën a si ak soxna soos du bëgg naa ko mën na ne kër gi nga xam moom la soxna si am moom la teg bët nan la mun a def ba dugg ak moom ci néegu sëy gëmloo ko boppam fexe nax ko ba kër googu mu mën ko récupérer wala alal bi nga xam moom la soxla si am mu fexe ba mën a dund ci alal boobu wala nationalité bi soxna si yor mu fexe si booru ci wetam ba soxna si génnee ko réew bi génne ko bitim réew waaye mën na nekk sant sant ak Euh, honneur bi famille bi soxna si am loolu rek moo ko attiré pour mu ne man am naa soxla ci famille diw ak yu mel ni yooyu dañ koy faral di gis ci néegu sëy nga xam ne bu atteindre ay objectif am rek enfin ñàkk ngor la lay woon euh, góoreeti la lay woon ñàkk diina la lay woon tapaas la soppaleku soppaleku bu gaaw boo xam ne ngay daan li mu doon lii lan la kii lim ma doon wax mu doon dund ak man lim ma na borom nangu lool na nga mag na nga fekk lam doon def yëpp daf doon tricher la ko toxoon a dugal ci sëy bi mosu la ko wax léegi la ko ci dugal léegi jot na ko fi mu nekk nii atteindre na ay objectif am day dem ni mu amee ci góor noonu la amee ci jigéen bu nekkee góor wala afan bu nekkee jigéen pour mu fexe bay mën a egg ci ay ay ay ay bëgg-bëggam dana essayé ba euh, feewatle sa diggante ak sa yaay dina fexe ba feewaloo sa diggante feewaloo am sa diggante ak sa pap dina fexe ba séparé la ak say rakk yu jigéen dina fexe ba séparé la sa diggante ak say rakk yu góor fexe ba aakimoo ah, la fexe ba génnee la ci famille bi parce que fekk yaa ngi dund ci biir famille bi pour mu nax la pour mu egg fu mu jëm ak day jafe mais loolu muy def gaawantu ko du benn weer du ñaar du ñett du at du ñaari at jaral na ko sacrifier boppam 5 ans 6 ans 7 ci néegu sëy bi pour mën a atteindre li nga xamante mooy ay objectif am ni mu amee ci góor nag. noonu la amee ci jigéen moo tax bu ñuy seetaan théâtre am na théâtre boo xam ne Ibra Italie lañ ko tuddee woon euh, mu ñëw wane ne bitim réew la jógee ñëw wax ay waxam gisanteeg benn xale bu jigéen bëgganteeg moom mais Ibra Italie mooy saalab mooy njàppaan ba mu toogee xarit bi dégg boo may séentu fii maa ngi fee donc mooy ki nga xamante ni saa yi suy signalé gauche droite la kii nag boo ko moytuwul bu nekkee jigéen bu jëkkoo góor addunam foofu lay jaar yàqu mais bu nekkee góor tamit bu jëkkoo jigéen ci façon bi foofu la addunam di jaar yàqu bu ko defee. ay jooy rek la fi desee ak di riccu ak di jooytu fekk nag ki nga dugg ci ci moom dañ koo xamuloon te lii lu bari la ci suñu dëkk yi bon képp kuy góor war nga bàyyi sa xel bu baax a baax ci ban jigéen ngay seyal est-ce que bokkul ci façon bi waaye képp kuy jigéen war bàyyi sa xel bu baax a baax pour xam ki ngay seyal mbaa bokkul ci façon góor yi buñ bari ci sa alal ñu ñëw ci nga ne mooy jëkkër bu ñu tuddee xammaama mooy pitax waaye soxna si nga xamee moom lañ tuddee xammaama te moo di pitax te pitax lii qualité mooy dafa rafet dafa rafet dafa set dafa muus dafa lewet dafa bugg jàmm dafa yéwén dafa gore amul benn sikk am na jigéen yu mel am na jigéen bu mel noonu am na tamit góor yu mel noonu mais li ëpp ci borom xam-xam yi dañoo d'accord rek bu fekkee am na jigéen boo xamante ne day xam maama mooy kin koy njëkk a ma euh, kin koy njëkk a askanale mooy sunu yaay Xadija moo nekkoon jigéen bu baax jigéen bu rafet. jigéen bu bëgg jëkkëram jigéen boo xam ne ku lewet la jigéen bu mën a muñ jigéen boo xamante du yëkkati baatam ci kaw jëkkëram mukk ci àdduna jigéen boo xam ne lu mu am ci lu baax rek yéene na ko jëkkëram di rasulillahi sallallahu alayhi wa waaye dëkk jigéen boo xamante ne royuwaay la woon ci biir ak biti waaye yàlla dafa ko tamit jëkkër bu mel ni moom ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jikko yu rafet ya maandu ba teey ba yarmaange ba mën joxe ba tabe ba muus ba waaye baaxaay ba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu jàpp ne euh, amul kenn ku remplir melokaan yi gis ci pitax ci néegu sëy ci góor yi ku du rasulillahi sallallahu alayhi wa waaye gis nañu tamit ne amul benn jigéen boo xam ne remplir na mbooleem melokaan yu positif yi ci néegu sëy kudul sunu yaay Khadija radiyallahu anha loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu yaay Khadija euh, ku mos a am moom wala la dafa mos a saay su toogee di ko fàttali ko di wax mbaaxaayam. moom rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ngir tërëkk yi nga xamante ne moom la ko sunu yaay Xadija woon léegi nag mbokk yi ñu dama lay bëgg wax benn secret te secret yooyu ñu ko jëlee ci yaay Xadija xam ngeen ne sunu yaay Xadija say nag yonente bi salallahu alayhi fukki at ak juróom te mosu tawul ji mosu tawul borom xam-xam yi nag ñu jàllale di ko usra découvrir nañu secret yi nga xamante ne moom la suñu yaay Xadija amoon ba mësuta wujje ci dundam radiyallahu anha léegi képp koo xam ne nekk nga ne nekk nga soxna tey nekk sa biir néegu sëy te buggoo wujje nan ñu xaar ci émission yi ñëw parce que am na ay qualité yoo xam ne jigéen bu ko amee du musawu ji jëkkëram du ko musawutal ñaareel te qualité yooyu ñu ngi ko jëlee ci sunu yaay Xadija borom xam-xam yi dañuy wax ne góor goo gis ñeenti jigéen a ko doy góor goo gis ñeenti jigéen ñoo ko mën a satisfaire waaye tamit. benn jigéen mën na nekk ñeenti jigéen benn jigéen mën na nekk ñeenti jigéen kon ku bëgg doo am wujj nag ñu déglu su suñu di ñëw danay wax jigéen boo xamante ne am na yoo xam ne bu ko defee du ko am wujj wasalaamu aleykum wa rahmatullahi